والأمم بكنقياد الصالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك بي يا سيدي أصنع احترام جادلنا باق تعالى عدمنا بك فأنت سيدي خير أنا نويت شكر عليك كلا وكل شيء والكتاب ندام نويت شكره عليك بقلام وخيرها يا سجوامي الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا خايدا لي من إلهك المرام تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله عبوت بذنب تبت لربي زائرا بذا الندام لك وقبله وقلت بذام تبت لربي زائرا بذا الندام لك وقبله عبوت بذام وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله إمام البرايا كسب سيدنا محمد وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم والنبي المنتقى المنير ينير قلب كل مستنير أحمدنا مختار لا يباهى عند الذي بالبرايا باها نبينا الأحمد نور الرسل عليهم أزكى الصلاة المرسل نبينا الأحمد نور الأنبياء عليهم أزكى السلام ربيا كتاب أحمد سواه نسى وإنه بخير لن ينسى للمنتقى للمنتقى للمنتقى للمنتقى أنا نبغي سيدنا محمد للمنتقى الذي تقدم سبق ذكر الحكيم من إبليس لبق عليه صلى بسلام سرمدا في الآل والأساب وكل حمدا للمستوى للمصطفى للمصطفى لدى الإله الواحد نور ينير قلب غير جاحد ألا يسكن أكد في كوني أحمدنا المختار نور الكون أحمدنا أحمدنا المختار نور الكون خدمة خير العالمين فأمد صدر العلوم نار أسجمت لم ينني شك ولا توقم ولسوى قلبي ينقل وقم قلبي يسنه الجميل عن خبيث وليقود نور في مالي به علمني من لوقي والقلم من يقود علم ما لم أعلم زلم نفسه لذي عداني لأنه البارس من عداني يعصمني الباقي من الأقدار في دار دنيا وتلك دار مع النبي المنتقى المنير زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي وقبى بنوري من زن غير الله يغني أو يدر فذاك في دارين ذو كد ودور من ظن غير الله يغني أو يدر فذاك في دارين ذو كد ودر أدر والنفع من الرحمن ليس من البلدان والسودان أدر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi julli ci sayyidina Muhammad ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom bàyyi ko fi te yàggal ko te may ko wér ci darajey maamam Seexil Xadiim waaye ñu ñaanal te nuyu Cheikh Mouhamadul Bachir anta ñang Mbàkke mi toog di xalifa mam Cerno Ibra Faty yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla may ko wir kàttanal ko ci darajey maamam darajey baayam maam Cerno Ibra Faty ñëw nañu fi tey ànd ak koo xam ni doom la ci kër mu toog ak baayam waaye Cheikh Mamadou Bachir daal di woo Cheikh Mahamadan mii di doomam taawam ñu ko ah, dama bëgg nga gàttanul ma Cheikh Ahmadul Bachir sëñ Mahmadan ànd ak mbokk yi ak yi ñoom ñépp mu taxaw fii ci bunt bi di xaar sunu waa ji nga xam ni kenn la ci réew mi di koo xam ni yitteem yépp mooy jàmmi réew mi muy Cheikh Alassane Sène soppee Seydina Mouhamad waaye ambassadeur nag dala la du Sénégal bu toog ñëwoon na waaye ñëwaat na ngir cofeelam ci daaru ngir ak bëggam ci daaru ndax sëñ Tuubaa ni woon cerno mooy sama loxol day jox moom mii itam yëpp bëgg-bëggam yëpp mooy rasulillah sëñ Tuubaa nag lu ma am way na ko lu ma am jox na ko yonent bi waaye lu mu jur tuddee na ko yonent bi toogaay bi muy toogaay boo xam ni keroog bi fi seex bi ñëwee ba toog ak cheikh Madul Bachir biñ jógee bàyyam bi daa jàpp ci loxoom ànd ak moom dugg ci biir néegu biiram waxtaan ak moom ñaanal ko waaye bi cheikh bi ñëwee yaa liggéey bu mag bii nga xam ni ñu ngi ko sumb ci dëkk bi muy jumaay sunu borom ji seexal sànn ni ah faw ma seet sama baay waxtaan ak moom ngir lan jumaa ji a ah, ay magam yu baax de nag tàmbali woon ko cheikh mu daaw balla cheikh abdul xuddus tey mu tabbi ci loxo seexal sànn sawar naa ñëw ci cheikh mu dul bachir neex Mouhamadul Bachir ci turu yonent bi mooy borom mbég mi te kii lu ma am yonent bi kon nag bi muy ñëw ànd nag ñi mu baaxoon la ñëpp jëwriñ Ali Ndaw mi ngi ni toog di doomi Alaaji Abbas Ndaw mi ñëpp xam mu ngi ni toog dend ak sëriñ bi ànd ak Alxaaji Asan moom it ñëw na ak Cheikh Malick bii nga xam ni mook Cheikh bi ñoo bokk lépp Alioune Badara itam moom moomit ñëw na di kenn ci Cheikh bi Mouhamadul Mansour mi nga xam ni nag moo yor mbiri Cheikh bi ci bitim réew ànd nag moom moomit it ñëw na imam Sall nga xam ni imaam la ca Parcelles Assainies moom di kenn ci sëriñ bi ñëw na Yankuba ak di kilifa moom it ñëw na ak alxaaji njoogoog ak seexal ma ñoom ñëpp ñu ànd ak seex bi nax seex bi saa suy jóg ñoom la baaxu di àndal saa suy dugg si daaru seexal san du bëgg ñibbi seex bi ne ñu ngi sant yàlla bu baax nee na di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa nee na mu ngi ziyaara sëriñ bi nee na di ziyaara sunu baay di ziyaara sunu soppe di ziyaara sunu xarit nee na ci dalal gi nee ci cofeel gi ak ci yërmande ji ju mat sëkk ju ñu ëmbal nee na saa yu nu ko xoolee nee na sunu xel yépp dafay gën a dal ni mu nu yiiree ni mu nu bëggee nii mu ñu boolee nag ci njaboot ne mu nekk mbégte mu rëy nag ci ñun di nuyu bu baax Seydina Alioune mi toog ak njaboot gi yépp ci dalal gi ci safoo gi ne ci bëgg gi itam nee na ci yéene gi itam ci ñaan yi ak ci dëkke saa su ne nee na jël turam bii ne di ko fàttali nag sëriñ saa su ne ne mu nekk lu rëy a rëy nag ci ñun ne tukki woon sax moo tax mu gëj fi waaye moom warut a gëj fi ne ni ko góor gi boolee ci njaboot nee na boolee nag ci njabootam. te naa ni. yég naa ni. jàppe na ma. jàppe na ma. njabootu boppam. njabootu boppam. ne yëg naa ko ci biir. yég naa ko itam ci biti. sëriñ ne sëriñ bi. maa ngi dellu di la ziyaara. di la feddali cofeel gi ma la ëmbal. ne di feddali cofeel gi nga xam ni moom la la ëmbal. nga teel ma ko lool. waaye waaye ne nga teel ko ko lool. ba ba ma yëg ko ne ku ma nekkali yëg ko moo waral tànk yi ne ñëw ci yow ngir feddali ni doom gi ci yow jërëjëf Cheikh ne daanaka ku dugg daaru nee na sant borom daaru sa xel dafay daal di daw tam sa xel dafay daw ba Touba sa xelit jàppaat jàppaat seexul xaddiim seexul xaddiim ñu sant ko ne ñu sant ko ci taxawaay ci taxawaay bu mag bu mag bi mu am bi mu am ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne rawatina nag weer gii ñu nekk weer gii ñu nekk moom moo ñu xamal moom moo ñu xamal ne soo bëggee xam dëgg-dëgg ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ngay jàng nee na sóoratu naj mi ne aaya benn ba fukk ak juróom-ñett ne ñu tombe nag ne ci isra ak mihraaj ne ci jamono jii ñu fi ñëwee ne di sàkku sëriñ ne ñaar rek lay ñaan ne mu gënal ko benn bi benn bi dafay ëmbaale sama soxla bopp nee dafay ëmbaale nag soxla bopp mooy nga yàgg fi lool sëriñ bi mooy Cheikh Madou Bachir mi toog mbakki nga yàgg fi lool tu nee ànd ak wér ndax loolu soo amee nee loolu soo sama soxla nee soxlaam ca loolu nee dana tàbbi ca loola nee faju nee loolu rek la ba ca topp nee ba ca topp sëriñ bi sëriñ bi yëg nga ni yëg nga ni dëkk yi wër Sénégal yëpp dëkk yi wër Sénégal yëpp ngi am coow ñi nga am coow benn amu ci jàmm foo ci dem tey ne doo fa bëgg a def sax ñetti fan nga yaakaar nga ni coow li dafay gën a jolli suñu réew nag sunu réew yàlla ñaagagul na ko yàlla ñaagagul na ko ba jamono jii sama yaakaar sama yaakaar mooy mag ñu baax ñu mel ni yow mooy mag ñu baax ñu mel ni yow bu leen ku leen bëggal benn fan rek mën naa ëmb mën naa ëmb jàmmi réew mi jàmmi réew mi ba dara ba dara du ko gàllankoor moo tax ma lay ñaan tax ma lay saa su ne saa su nga ñaan jàmm nga ñaan jàmm law ci suñu ne law nag ci suñu réew wax ji nag bi jàmm moo tax ñu a agsi ne jàmm moo tax ñu mën a agsi fii tey ndakaaru jóge ndakaaru ba fii ba fii amuñu benn gàllankoor amuñu benn gàllankoor alhamdulilahi rabbil alamin jàmm jooju jàmm jooju moo taxit moo taxit ñu mën a toog ak yow mii ñu mën a toog ak yow mii soo ko ñaanee soo ko ñaanee su lawee ci réew mi su lawee ci réew mi dana dana dana yokk naataange ci réew dana yokk nag naataange ci réew ndax foofu rek foofu rek la nit ñi war a xoolee la nit ñi war a xoolee jamono ji jamono ji damay wax benn nit fan yi ne dafay wax benn nit fan yi ma ne ko sëriñ bi ma ne ko sëriñ bi su suñu xoolee li xew ci àdduna. suñu xoolee li xew ci àddina. ñu xool taxawaayu Cheikhul Khadim. ñu xool taxawaayu Cheikhul Khadim. ak nu mu taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ne ñi mu taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñun dañu war a am. yaakaar ne dañoo war a am yaakaar. saa su ne saa su ne. ni sunu réew ni sunu réew. dana mos a jóge ci ndóol. dana mos a jóge nag ci ndóol. ci dagg yooyu. ne ci dagg yooyu. bàyyi ko bàyyi ko. ci Cheikhul Khadim. waaye waaye ci Seyxul Khadim. jëm ci yeneen ne jëm nag ci Sayyiduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ne mu gàttal wax bi. ñu ngi doon di noot. waaye waaye Cheikh Madul Basir ñu ngi jégalu ci kaddu yi. xamal ni nag ah am nañu cofeel gu rëy. ci sa jëm sant nañ la bu baax a baax sant nañ la bu wér sëriñ bi yàlla na nga fi yàgg lool waaye waaye ànd ak wér nee na ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne liggéey bi nekk ci jumaa ji ne fas nañoo yéene ànd ci ak yow nga ñuy digal ñuy def loolu rek yemale ci wax ji la ñuy yemale nag ci wax gi la ca des la ca des la nga ca bëgg la nga ca bëgg noo ne lañ ko nar a doxale lañu ko nar a doxale maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp euh, ku lim sax ne ku lim da ngay fàtte da ngay fàtte wolof jaay dafa dafa dafa juum ci wax ji ne ku juum la wax. waaye olof Ndiaye def ni ku lim juum la wax. dafa juum waaye dafa mel ni dañu war a wax ne ku lim fàtte. ne olof Ndiaye daa war a wax ne daal ku nag fàtte. waaw moo tax danay jël nag ñi may nuyu ñëpp. ne day jël ni muy nuyu ñëpp. dëxëñ leen dëxëñ leen. teg ko ci loxo sëriñ bi. ne teg ko nag ci loxol. Cheikh Moussa Bachir mu ñu ñun ñëpp. waaye waaye ñun ñëpp. ndax ñun ñëpp njabootam la. nee na la. sëriñ bi sant nañ la bu baax. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ne ñu dimbali nu ne may nu juróomi minute ne ki ko war a waxal wax ko ne timis jot na sëkk bu timis jotee kenn waratu la def dara waaye waaye ñu xam ne loolu rek mooy suñu yitte yàlla may nañu ne ñu teg ci tuuti ne mën a yeggali lu farataal li lii ne ak jokk bopp ak saafonte ne dara lu ko gën a fort amul ne jàkk sax boo ci dugg da nga naan asalaamaaleykum waaye waaye ñu may nu juróomi mi sëriñ Mahamadan jot ci kat mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp sëriñ Mahamadan nee mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen nuyu ci turu sëriñ Alassane nee di leen nuyu ci turu sëriñ Alassane mi nga xamante ne. nee na mi nga xamante ni. ganuk sëriñ bi la tey. ganuk sëriñ bi la tey. di ko nuyu ci turu sëriñ bi. nee na di ko nuyu ci turu sëriñ bi. di ko dalal ci jàmm. nee na di ko dalal ci jàmm. sëriñ bi di ci am mbégte ci dalal gi mu ko nee na sëriñ bi di ci am mbégte ci dalal gii mu ko dalal. ndax moom. nee na ndax moom. daf koo jàppe nee na daf koo jàppe njabootam. nee na njabootam. jàppe ko. nee na jàppe ko. njaboot yi mag ci njaboot gi. njaboot yu mag ci njaboot gi. moo tax. nee na moo tax. jant bu jàppee. ñëw ci moom nee na jant bu jàppee ñëw ci moom. bis bi yëpp. nee na bis bi yëpp. da ciy ànd ak mbégte. nee na da ciy ànd ak mbégte. moo xam ne. nee na moo xam ne. du ko mën a feeñal. nee na du ko mën a feeñal. ndax ci suba ba léegi. nee na ndax ca suba ba léegi. nun ñii fi nekk. nee na nun ñii fi nekk. di ay njabootam. nee na di ay njabootam. ñëpp. nee na nanguwul kenn ku génn kër gi. nee na nanguwul kenn ku génn kër gi. juróomi minute yu ñu toog. nee na juróomi minute yu ñu toog. mu woote. nee na mu woote. ne ndax Cheikh Alassane agsi na wala déet. ne ndax Cheikh Alassane agsi na wala déet. loolu nag ak cofeel mënu ko. nee na loolu nag ak cofeel mënu ko weesu. kon sëriñ bi mi ngi lay sant. nee na kon sëriñ bi mi ngi lay sant. te di la dalal jàmm. nee na ca di la la safoo. nee di la boole ci njabootam. nee na di la boole ci njabootam. na mu la ko waxee woon ci yoon wu njëkk wa. nee na la ko waxee woon ci yoon wu njëkk wa. dara du ci no dara du ci la ko jàppee. nee na noonee la ko jàppee. keroog ba nga fi jógee. nee na keroog ba nga fi jógee. ba waxtu wii nga fi dellusee. nee na ba waxtu wii nga fi dellusee. amul benn bis. nee na amul benn bis. wala wenn waxtu. nee na wala wenn waxtu. wala wenn saa. nee na wala wenn saa. ludul nee na ludul. dafa xalaat ne. nee na dafa xalaat ni. fasaale la nee na fasaale la. te boole la ci njabootam nee na te boole la ci njabootam. musu koo manqué benn bis nee na musu koo manqué bis. kon nag nee na kon nag. waxtu timis yi moo tax. nee na waxtu timis rek moo tax. kon lim ci bëgg wax lépp dana nee na waaye kon lim ci bëggoon wax lépp dana ko ci wax. dalal jàmm yow daal sëriñ Alsaan dalal jàmm. ñi nga àndal ñëpp. nee na ñi nga àndal ñëpp. sëriñ bi di leen bége. nee na sëriñ bi di leen bége. di la waxit ne ni. mi ngi sant nee na sant. muy sëriñ Aliou. muy mii. Mouhamadul ak Mouhamadul Basir mii. nga xam ne ñoom nga doxale woon ci diggante bi. nee nga xam ne ñoom nga doxale woon ci diggante bi. doon doon wax ñoom. la dara manqué wu ci. nee leen ko waxe woon rek.

ba jàmm ji nga bëgg nee na ba jàmm ji nga bëgg te bi bëgg jàmm jooje nee na ca sëriñ bi bëgg jàmm joojee nee na jikko yooyu nee na ndax jikko yooyee sunu borom daa dogal nee na sunu borom daa dogal yàlla boole leen ko yéen nee na yàlla boole leen ko yéen ñaar nee na na ma la ko waxe woon daaw nee na na ma la ko waxe bërëb bii nee na moom daara la ñëpp la nee na këru ñëpp la ñëppay ñëw nee na ñëppay ñëw sëriñ bi dafa bëgg jàmm nee na ndax sëriñ bi dafa a jàmm moom dafa yéene ñëpp jàmm nee na ndax moom dafa yéene sañoon kenn du am jafe-jafe nee na sañoon kenn du am jafe fii ci néeg bi nee na boo ñëwee fii ci néeg bi nettali ko lu xaw a metti sax a metti sax bis boobu day am jafe-jafe a wax ak a wax ak nit ñi moom bu sañoon ndax moom bu sañoon kenn du gàllankoor nee na kenn du gàllankooru ñëpp dañuy nekk ci jàmm nee na ñëpp dañuy nekk ci jàmm soo ko waxee mu ne la nee soo ko waxee mu ne la li ma yéene sama bopp man li ma yéene sama bopp rek laa yéene ñëpp su ma sañoon luy ñëw nee su ma sañoon luy ñëw maa cay jiitu ba noppi maa cay jiitu ba noppi nit nit ñi door cee dem te su ma tëddee nee na ci su ma tëddee wala nekkuñu ci jàmm nee na nekkuñu ci sama xel du dal nee na sama xel du dal ndax la Omar Abdoul Aziz waxoon nee na la Omar Abdoul Aziz waxoon day dellusiwaat ci xelam ci xelam nee damay yaakaar ne nee na damay yaakaar ni nee na bu génn nit génnee ci biti. fakkastaloo gaañu. nee na fakkastaloo gaañu. nee na responsabilité boobu man la. nee na responsabilité boobu man la. ndax maa waroon a dem ci yoon wa. nee na ndax maa waroon dem ci yoon ko a fas ba mu du daanu kon su ma fa bàyyee bant ba nee na kon boo fa bàyyee bant ba ba mu daanu nee na damay yaakaar ne loolu yàlla dama ko laaj ba liggéey nee na boo loo tax moo tax damay bëgg ñépp nekk jàmm nee na kon wax ji du a waxal boppam nee na li mu bëgg a waxal boppam li mu bëgg a tënk lépp dana ànd ak yow nee na dana ànd ak yow ah, ci biir la mu bëgg a wax lépp la a wax lépp nee na dana la ko wax nga dégg ko nee lii da ko doon jot li njaboot gi nga àndal nee na di leen seereel ni sant na la sant na la ndax taxawaay bi rafet na ndax taxawaay bi rafet na ba ngeen jàppante ba léegi ndax ba ngeen jàppante ba léegi dara mosu cee jóge dara mosu cee jóge nee na sëriñ bi nee na sedd na nee na mi ngi lay sant bu baax di wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk jullit yu tedd yi rawatina sunu mbokk talib yi nga xam ne ñu ngi nuy bàyyi xel te di ñu seetaan ñu ngi leen di nuyoo fii nga xam ni mooy Darou Mouhty tey jii dimanche ñaar fukki fan ci weeru février fii ci jumaay Cheikh Ibrahima Fati borom daarul moxti image boobu ngeen gis ak image bi nga xam ni moom ngeen jàkkaar lool ñu jóge ci Cheikh Mahamadoul Basir xalifa borom daarul moxti ànd ak Cheikh Alassane Sène ñëw fii ci jumaa ji sëriñ bi jox nu ndigal boole noog sëriñ Mahmadan doomam ni ñu na dem xool jumaa ji dem itam visite jumaa ji mook mbooloo mi nga xam ni ñoom la àndal sëriñ bi ñu di la dalal jàmm bu baax fii nga xam ni mooy symbole bu mag bi nga xam ni boo duggee ci dëkk bi li ñu gën a fonk gën koo bëgg te mu gënal sunu borom subhaanahu wa mooy barab bii nga taxaw tey muy jumaay daarul moxti ta borom xam-xam nga bu sell boo xam ne réew mépp nangu nañu ko ndax wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada kon ñëw nga ci barab boo xam ne lislaam a ko sanc diine ko sanc waaye ki ko sanc juróom-ñetti fukkaat yi mu dund ñaari yoon la musa tiim nee na at mi mi sanc koso ak at mi mi mi tuddi ma Massamba ñaari at yooyu la mos a tiim te ba mu amee ndox nag fay na julli yooyu mu tiim ku mus la jàpp mosoo dugg ci jumaam 1966 la ko taawam bi ko njëkk a taxawalal néegu borom bi subhaanahu wa taala bii ci ndigalam 2004 la ko Serigne Cheikh Khady Mbacké jàpp 2006 la ko yeesalaat Cheikh Mahamadoul Basir mii nga fi fekk nag woote ko mu toll ci biir sëb ñetti milliards fas yéene ko defala Cheikh Ibrahima Fati borom daarul moxti fii kon jàpp naa ni teew gii nga fi teew tey fekk fi njabootu borom daaru moxti ànd ak Seydina Aliou Samb mii nga xam ni ku la xam xam sa digg ak moom mu bokk ci njabootuk sëriñ bi kon tey sagal nga ci képp ku la xam waaye rawatina Seydina Aliou ak sëñ Basiru mii kon jàpp naa ni ci turu sëriñ bi sëriñ Mahamadan dana ci yëkkati kàddu waaye dafa am benn cellule de communication boo xam ni dañu koo jagleel lu jëm ci jumaay daarul moxti ci seen tur ñoom ñëpp ñoo ngi lay jagleel cant ak ndax lii dey waroon nañoo ñëw ba fa nga ne ndax xam gu ñu xam diine ni mu la ñoree lislaam ni mu la ñoree jëf ci yoonu yàlla ni mu la ñoree ñu ñëw dékk la suñuy micro ngir nga soññee lu jëm ci jumaay Daarul Muxti kon nag boo jëlee sa tànk ànd ak mbooloo mi nga àndal ñëw ba fii taxaw yëkkati sa addee jox sëriñ bi ni ko maa ko jàppee ci liggéey bi Daaru Muxti gépp a ngi lay sant yoonu murid wépp a ngi lay sant liggéey bi keroog bi ko sëriñ bi dooree bi mu demee ci Cheikh Mamadul Muntaxa daf ne ko kenn du ma ci man ndax boo doon lim sa dongay bàyyi Cerno Birahim boole ma ci man Cheikh Mamadul Muntaxa yaakaar naa nag kuy ñëw ci dëkk ñu ni da nga faa fekk turandoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy Cheikh na Bachir Seydina Aliou teerlu ak Cheikh Mahamadul Bachir loolu doy na sëkk mbégte kon noo ngi ñaan sunu borom guddal fan wi te wéral cër yi teew gi nga teew fi doyoon na sëkk ku la xam ci bitim réew xam la ci biir réew mi foo teew yaa ngi teewal l'islam waaye yaa ngi teewal nag mag ñu baax ñi nga xam ni ñoo fekk baax fii ci Sénégal kon tey boo teewee fii gan gu mag am na fi fii nag képp koo xam ni Serigne Touba mos na am ngay ganuk diineeg foo mos a jóge Cerno Birahim la lay booleel Serigne Moussa Ka ba muy way dani moo a joro moo ma joxoon fa daaru wirdul xaadir ci daara jëy Serif ba Abdul Xaadir rakki Serigne Touba la Serigne Touba gërëm ko waaye daan na joxe wirdu Tidiane daan na joxe wirdu xaadir moom Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Muxti kon tey fi nga teew teew nga foo xam ni bu fekkoon dañuy wax universel ci yoonu murit ci lépp loo xam ne jëm na ci diine mooy dëkk bi nga xam ne 1912 la ñu ko sanc ci ndigalu Serigne Touba Cheikhul Khadim barab bi fi gën a mag tey mooy fi nga taxaw le deux octobre la ko sëriñ bi teg xeer wi 14 janvier la taxaw fii ñaan ñu tàmbali liggéey boobaak léegi ñu ngi ci ak ñu ñu ko àndal yëpp mu jox liggéey bi nag sa xarit le PDG Mouhamed Nazir Samb moom itam mu tàbbee ci nu am solo ñëw taxaw ci yaw itam nga ñëw feelu ko ci loolu mooy wane diin rek la ñor am nga barab yoo fekk baax néegu borom a nga fay taxaw def nga fa la nga war a def waaye ñëw fii ne ni diina ji bu yëngoo ñëpp la yëngul kon ñoo ngi ci sant di gërëm ñu yëkkati kàddu gi rek jox la ndax Bachir ci ba waajur waajur wi mu doon ci ñun dox ñu ndigal man ak sëñ Mouhamad Mouhamadan euh, ñu feggoo ak euh, sëñ Bachir ak euh, sëñ Aliou ñëw xool travaux yi ñun nag doom lañu ci moom moo tax message bi may lancé mooy damay woo képp koo xamante ne yaa ngi nekk ci réew mi di wuyoo diine islaam di bëgg sa réew nga tàbbi ci liggéey bu am solo bi tàbbi ci nag ngir jàppale ñi dëkkee daaru déedéet danga ko def ngir yow ak sa njaboot ndax néegu yàlla ku ci def sa alal mën na laa yiir fii ñu ne ak fa ñu jëm maa ngi woon a képp kuy sénégalais képp sax ku dul sénégalais ngay jullit nga nga nga tàbbal sa loxo ci liggéey bu mag bii sunu waajur wu tedd wii di sëñ Mouhamadul Bachir wooñu te wooteem ndigal la wooteem yiw la ci njaboot gi njaboot gi yëpp ci réew mi wooteem defaru la woowuñu ci boppam mu ngi ñu woo ci néegu yàlla néegu yàlla bii mu ñu woo nag maa ngi ñaan képp ku nekk ci réew mi nga ñëw tàbbi ci incha allahu taala ba liggéey bi yegg ci ci fekkeem ci talam mhm. mu mu wax nga léegi rek wax bu am solo nga ne bi mu demee seeti sëñ Muntaxa nee na ko liggéey bi kenn duma ci man waaw loolu lu lu lu rëy la moo tax ñoom ñaar ñëpp ñu ngi leen ñaanal yàlla defal leen wér yàlla yàggal seen taxawaay eh, di delluwaat sëñ Muhammadan di la di di la di la di la di la yóotaat ay kàddu cant yu yu bàyyikoo ci ñun ak sama njaboot jëm ci suñu waajur wu tedd wii di sëriñ Mouhamadul Bachir ne ko sant nañu bu baax ci ci li mu ñu yéene ñu tàbb ci liggéey bi ñu ngi ko ci sant bu wér a wéer di la sant ci ànd bi ñu ànd ak yow kàddu yi rafet na sant nañ leen bu baax a baax a baax jërëjëfati jëfati di la xamal ne béréb bii nga ñëw euh, fas yéene na koo tàmbali parce que yéene cee def lépp lu mu am lu ko nit joxit mu defal la ko ci ngir ay sabab ndax fii nu taxaw tey Cheikh Ibra Faty mi nga xamante ne moo sañ ci béréb bii fii la toog ci buntu jàkka ji ab bem ñëw ñuy julli mu séen ko muy tiim mu ne ko lu tax ngay tiim taalibe bi ne ko man de dama am ngànt ndax dama amee rhumatisme te jamonoy sedd la su ma jàppee sama yaram wi day neewi moo tax ma am ngànt di tiim boroom daru ne sigget xool ko ne ko déedéet pexem saytaane rek la demal nga jàppite nga julli bul dugg ci sama jàkkati julli woo mu dem di jàpp yaram wa di yokk bis bu njëkk ba ci suba sa muy tàmmee tàmbali di wàññeeku ba wér peleg fii ci dëkk bi fii la daan taxaw nañ fii ci dëkk bi fii nit taxaw ci dëkk bi boot doomam ci ginnaawam doom ji naan yaay ji damaa mar dama mar damaa mar ba faatu ci ginnaaw ndeyam ndax ñàkk ndox te mësta loolu li muy am am lépp nit taxaw na fii da daan jël xaal ñu xam xaal dañ koy jambu ba mu nekkum ndox ñu segg ko siime ko seen cere ndox ma seen na ca suuf ñu naan ko lekk cere ja te jamono yooyu li muy metti metti kenn mësta dugg ci jàkk ji te tiimoo bu fekkonte ca jàppoo bu fekkonte ne da ngay dee sax ngir ñàkk ndox moomu jàppe ko te dee te julli ji waxtu juróomi kon jumaa ji nga taxaw fu am avenir la te yaakaar naa ku ko xool wala nga dugg fi wala nga def ci sa alal boo toogee tuuti da nga ko gisal sa bopp ndax xaqiqa rek ko lal waxuma laak nag ñu koy defal yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax jàkka moom yàlla rekk ko moom keneen moomu ko jàkkay sëñ Basiiru Anta Ñaŋ amut jàkkay sëñ Mudaa Bàll amut jàkka yàlla rek am nun ñëpp ko bokk kon moo tax sëriñ bi jël liggéey bi teg ko ci loxob rakkam di imaamu dëkk bi di sëriñ Abdou Samad nga xam ne doomu sëriñ Mudaa Bàll la liggéey bi fi nekk yëpp moom moo ko yoral boppam ñu jël ko teg ko ci loxob Mouhamadou Nasir Samb mu ànd ko moom itam ak i rakkam ak njaboot ga yëpp moom it mu taxaw ci taxawaay bu rafet ndax wax dëgg yàlla bañ ko ko joxee nekkul entrepreneur kese waaye dafa doon taalibe buy liggéeyal sëriñ bi yëkkati alalam ju bari lu toll ci deux cent million ne tàmbale naa ko entrepreneur buñ jox nga yëkkati deux cent millions ne tàmbale ci boole ko woo ci ñëpp ñu ñëw kon sëriñ Alsaan li tax sëriñ bi ne la demal fii du ay caaxaan te bu nu demee ba ci kanam danga xam li tax sëriñ bi yabal la ci jumaa ji ne la demal ci jumaa ndax fonk na la fonkeel goo xamante ne am na ci yow cofeel goo xamante ne yaakaar na ne waxtu wii nu toll ak aas bii mu toll yaakaar na ne lu mu am war ngeen ko seddoo looloo tax mu yabal la fii mu la yabal te am nan yaakaar ci ne danga ko gis kon nag sëriñ bi nee na liggéey baa ngi nii mi ngi la koy dénk di ko dénk njaboot gi yëpp di xam ne ne liggéey bi ñëpp a ko bokk te kenn ku ci nekk soo ci defee saalal ni mu doone ndigalul yàlla noone la doone ndigalul seenub sëriñ mm-hmm. muy sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa moo waxoon borom daaru ne ko demal ca béréb bee nga dëkk fa mm-hmm. jógeel Mbàkke Kajoor nga dem fii boo demee nga sanc fi Daaru Muxti 1912 mm-hmm. ne ko nag na nga fa toog lu la fa fekkul man sëñ Tuubaa wuma ko looloo tax lu daan ne ko ab pucc sax bu lakkee ci Daaru Muxti ci tubaa ab néeg bu fa lakkee wala la gën a tuuti sax bu fa lakkee dana lakk Daaru Muxti ah, te Cheikh Mouhamadoul Bassir feddale na ko ci bi feebar bi duggee ci réew mi jamono yooyu coow li na ñob ci ci ci internet bi ñu naan Touba téeméeri ka Touba ñaar téeméeri ka nit ñi ñëw di ko sant ne ko danoo ngi sant ndax daaru moom daa amagu dara ba léegi <laughs> mu reetaat ni leen yaakaar ngeen ne du ama ginna am na Touba te muy dëgg dana am daaru mos ban toogee ci suba sa lañ tàmbalee dégg ñu ne ay cas am na Daaru Muxti kon dafay mel ni waxu sëñ Tuubaa boobu ba toujours toujours toujours dafay feeñaat kon nag sëriñal Alsaan duñ la téye lu bari ndax tàng na waaye sëriñ bi daal nee liggéey baa ngi nii doomam nga taawam nga njabootam nga léppam nga kon nee na jël na ko bàyyi ci sa loxo xam ne liggéey bi kenn gënu la cee sañ yaa ko moom ni ko ñëpp moome lam ci sañ nga ci sañ lam ci man nga ci man liggéey baa ngi noonu mu teg ci seen loxo moom nee na mag la moo xam ne mënul lu dul toog digal leen bu leen digal leen ba noppi nag mm. noppi na ca day toog seetaan leen asalaamaaleykum wa rahmatulah